état du man am naa ñaari question yu ma la bëgg a poser mhm. benn bi c'est politique benn bi c'est économique mhm. considérant ce que le Sénégal a vécu au moins depuis trois ans tout à fait considérant la rupture ay dafee <laughs> bi nga xamante ne bi autrement di la bipolarisation ouais. qui au Sénégal avec ses lots de conséquences considérant aussi le désespoir qui a gagné presque tout le Sénégal. Mhm. gis nga xale ni ñuy dee ci géej gi. tout à fait. quelles doivent être les trois sur Mm -hmm. du prochain président loolu mooy première question bi. Mhm. la deuxième question mais docteur Sénégal est-ce que am na modèle économique. <laughs> parce que sànq dañuy wax PSE. et mhm. pour beaucoup de responsables. de Benno PSE modèle économique la man gëwuma loolu. du modèle économique. yaa ngi dégg. quel doit être le modèle économique. pas idéal mais approprié du Sénégal par rapport à nos ressources mais aussi par rapport à notre existant mm voilà xam nga ñaari question yi mën naa ko dëxëñ ci benn réponse hmm. parce que convergence de point de vue yi ma lay wax ci programme hmm. foofu la amee solo ñun politique wu ñu rek pour ñëw bokk Diomaye président hmm. gis nga le programme qu'on de présenter au Sénégal li ngay wax yëpp daf ci nekk cest à que Diomaye président dafa teg Sénégal xool problème mu Sénégal yëpp diagnostiqué ko ne am na cinq points yoo xam ne bu ma ci tegee sama baaraam yaa ngi wax trois donc dañuy élargir cinq lay doon. fay dir cinq sax waaye. Hmm? cinq lay doon donc cinq yoo points yoo xam ne man joomaay président bu ma ci tegee sama loxo mooy régler naa le problème des Sénégalais c'est une vision holistique. Hmm. parce que tey mën nga ñëw régler benn problème bàyyi beneen problème doo mës a am développement. mu ngi mel ni rek j'ouvre une petite parenthèse nga ni ah man kat sama économie maa ngi ko tegoon ci mbay mi maa ngi ko tegoon ci commerce mais tey am naa pétrole au lieu nga boole pétrole ak gaz ak la nga daan dundee nga sàggane benn bi ba jël beneen bi da ngay da ngay daanu. le programme de Diomaye président dafa taxaw ci cinq piliers yoo xam ne ba ñu defee jat diagnostic dañ ci proposer ay solution bu njëkk bi mooy le le développement institutionnel bi ma lay wax cest à que du point de vue des institutions et l'engagement africain. dañu d'accord ñun ñëpp que ne présidence de la république nu muy doxee baaxul ci Sénégal le président nomme à tous les emplois civils et militaires le président est chef des suprême des armées le président le président le président mën nga ko def sur deux pages mm-hmm. ñu ne ce hyper président la di liggéey ak assemblée nationale boo xam ne nañu leen di falee baaxul mm-hmm. la liste nationale notamment nga xam ne au Sénégal on a des députés nommés mm-hmm. un député il est élu mais quand mais à la première place à la deuxième place à la troisième place un député kooku il porte allégeance plus au président de la république bi ko fa teg plutôt qu'à la nation mm-hmm. ñu ne présidence bi ni muy dox doxe baaxul ñu ne assemblée nationale bi ni muy doxee baaxul notamment ci mode bi ñu koy fale ñu ne justice bi ni muy doxee baaxul parce que le président de la république à travers le procureur moom mooy décider mm-hmm. léegi ñu ni ce développement institutionnel là combiné à un engagement africain parce qu'il faut pas oublier que ñun politique bu ñu fi jël rek tey daf ñuy engagé au niveau africain no politiques commerciales sont des politiques africaines notre politique industrielle doit être une politique africaine donc ñu ne institution yooyu mooy premier pilier bi dañ ko war a liggéeyaat dañ ko war a travailler waat dañ ko war a doxalaat parce que bu ñu ko bàyyee nii li dal Macky Sall dal Ablaye Wade mooy dal ñëpp ñoom peut ñëw nañ avec de bonnes intentions mhm. boo ñëwee au lieu que nekk président nga nekk roi da ngay commencer def yu furoir donc loolu mooy premier point bi les institutions deuxième point bi mooy endogénéité économique bi ñuy wax mais dañ ko jël boole ko ak souveraineté alimentaire hmm. endogénéité économique mooy ah man de Sénégal la mais quatre-vingt-quinze pour cent de mon économie dama jàpp ne informel la mais informel c'est pa c'est pas de l'économie qui à part c'est une économie juste parallèle que nos républiques ne gèrent pas toujours ma joxe exemple boobu parce le ministre de l'économie du Sénégal il gère 5 pour cent de l'économie sénégalaise. 95 pour cent. et 95 pour cent et c'est le ministre qui le dit 95 pour cent de l'économie informelle. Mm-hmm. mais ñooñu ni ñuy defee économie c'est le résultat de notre évolution sociale. di nga ci fekk model Mouride di nga ci fekk modèle di njàmbur njàmbur di kajoor kajoor koo xam ne dafa dem école ñu dóor ko ay cravache dàq ko ne ko nulaar nga. Mm-hmm. moom mu xam ne nulaarul. mu génne nga tegal ko table tijjil ko boutique ëllëg. moom mooy recruter ceux qui ont des masters en droit mm. ou des doctorats en économie yow léegi yow dans ta république nga ne kooku baaxul dañ koy jël teg ko de côté programme Diomaye président ñëwaat ci ci endogénéité économique endogénéité boobu c'est un mot compliqué mais li muy wane rek mooy patriotisme économique maanaam pour faire simple man sénégalais bi bañu ma kenn waaye nag sénégalais bi moo ma gënal naar bi sénégalais bi bañu ma kenn mais sénégalais bi moo ma gënal tubaab bi et que à chaque fois bu tubaab bi waree jàppanteeg sénégalais bi ci économie yow sénégalais bi ngay falal loolu le président Macky Sall n'a pas su le faire et le programme Diomaye président yemul foofu dane endogénéité économie boobu bu ñu ko defee ba téye suñu économie dañ koy boole ak sécurité alimentaire euh, souveraineté alimentaire parce que dëkk ak loo riche riche riche te mënoo joxel sa bopp dépense li ngay lekk nga ji amal ko sa bopp tu es faible faiblesse boobu moo ñu dal en 2009 avec crise bi njëkk am en 2009. crise bi njëkk am en 2009 bu mu amoon les émeutes du riz boo leen mm. fàttale ko à Dakar mm. am les émeutes du riz à Abidjan lan moo xewoon Sénégalais ils avaient leur argent. ñu ngi yoroon seen xaalis mais gisuñu ceeb. loolu mooy différence entre sécurité alimentaire ak souveraineté alimentaire loolu daa mel ne sax sunu ay champion ku ci mel ne Moustapha Tall exactement ku ci mel ne Bocar Samba Dièye ils avaient mm. d'énormes difficultés exactement waaw léegi imagine nga mel am ku mel noonu dans ton secteur privé nga téye sa économie ba pare li nga xam ne moom nga soxla nga koy bay ci sa biir dëkk ko yor mais boo amee loolu bu président Diomaye fay réussir loolu mais doo soxla am président comme Macky Sall mu jël sa avion def ci kérosène dem ba Russie dem di mastata ay céréales ak ay blé. mais mais docteur la coalition Diomaye président compte. maa ngi ci deuxième point énormément énormément globalement énormément de technocrates ça ça rejoint ta question. Uh-huh. la coalition Diomaye euh, Faye président. compte énormément de technocrates. Mm-hmm. pensez-vous justement les technocrates que vous êtes réussir ce challenge du moins dans les 100 premiers jours de tout ce que vous promettez là aux Sénégalais. gëm naa ne dañuy réussir parce que moo tax ma dugg ci. Mm. mais li ngeen di woowee technocrate xam nga nag boo waxee technocrate xale yi dañuy tiit. <laughs> bon les inspecteurs <laughs> des impôts mais xam nga teg moo foofu te loolu tam c'est important mooy endogénéité bi ñuy wax ci programme Diomaye président. xam nga xam-xam loolu tam bind naa ko sama livre mooy convergence de vues ñun dañ ñu naxee. parce que wóor na ma ne Tabara bi nga technocrate yaa ngi ay docteur en droit ay master en <laughs> économie. mais waa Sandaga yoo ñu gën a nekk ay tec waa yoo technocrate téeméeri junni yoon. parce que tey mën nga jël un jeune qui a un master en économie. Mm. nga jox ko benn projet mu bind cent pages théorique. mais boo ko joxee bitigu mbagg mu daanu dans les vingt quatre heures. c'est la pratique mais loolu du technocrate. man li ma nangu mooy ne technocrate mooy xam-xam kenn du ko natt ci langue. c'est pas que yaa gën a mën a wax français yaa gën a mën a wax anglais yaa gën a dégg arabe yaa ëpp xam-xam xam-xam c'est le savoir-faire que tu mets à la disposition de ton pays mm-hmm. te coalition Diomaye président nag moom laa doon wax sànq ci complémentarité yi mais bu ñu ñëwee dañuy nekk ñi nga xam ne dañuy dañuy def du mën a rek théorie bi baaxul am na ñoo xam ne dañuy war a théorie parce que la connaissance le savoir la réflexion précède l'action mm-hmm. am na ñoo xam ne loolu lañ mën toog di xalaat bu ñu la mm-hmm. xalaatalee xalaat bi rafet mais boo leen ko joxee du ñu ko mën appliquer léegi dafay baax nga am ñu ngay woowee technocrate mais technocrate ci anglais. ci français ci arabe. ci wolof ci mandeng ci pulaar dans tous les domaines. loolu nag ñeneen ñi nga xam ne ñooy appliquer ñu ñëw appliquer. Ah. waaye nag maa ngi ci deuxième bi de. institution laa leen wax. ak endogénéité économique. demal demal capital humain. Mm-hmm. et qualité de vie. coalition Diomaye président dafa jàpp ni. ak loo mënti def ci réforme ci dëkk bi muy agriculture muy institution muy industrie ak lu mu mënti doon nit moo koy doxal mm-hmm. c'est l'homme tabax nit tabax nit ki mu ëpp solo yooyu mm-hmm. parce que boo tabaxee yooyu ba pare te nit ki ngay tabax baaxul il n'est pas patriote xalaatul intérêt yoom du dem on l'a d'ailleurs Sénégal combien de projet on a eu ici mm-hmm. Prodac yoo xam ne war nañoo mën a doxal réew mi mais nga jox ko nit koo xam ne matul ci mbirum jikko c'est un c'est une personne corrompue mais mu jël ay milliards def ko ci poche am bàyyi sénégalais yi ñu torox pourtant projet ba baax na de si je sais la littérature du projet est excellente projet bi boo ko tegee dafa war a dox askan bi gis ci boppam mais nga jël ko jox ko benn troubadour boo xam ne dafay ñëw jël lépp lekk ko projet bi daanu donc loolu coalition Diomaye président daf ci taxaw qualité euh, capital humain équalité de vie bari nag yu nekk ci am yu nekk ci biir mais li am solo mooy nan ngay tàggate sénégalais bi ba mu doon ku xam boppam. ku gëm boppam ku amul complexe amoo complexe ci français bi amoo complexe ci chinois bi ba loolu mooy tax booy signé sa ay contrat doo tiit gis nga Sénégal mooy dëkk boo xam ne gars yi bu ñuy signé contrat ak étranger yi dañu mel ni étranger yi ñoom ñoo ñuy rendre rendre service. Mm-hmm. da ngay mel ni rek yow yaa nekk maire bi ci koñ bi di jaay gerte caaf bi di xooyam xooyam bi ñëpp bëgg ko. yow yaa ngi am sa monopole ñëpp la soxla mais gars yi conditionné nañ la psychologiquement ba nga defee ne yow yaa leen soxla ba boo ñëwee ñoom ñoo lay fixel sax ay prix donc loolu c'est important aussi dans le projet. Mm-hmm. quatrième bi et c'est un point extrêmement important mooy la question de la technologie des savoirs de l'innovation et des infrastructures durables innovation pourquoi le Sénégal n'a jamais réellement investi dans l'innovation dinañ créer ay ministères wala ay universités def ci turu innovation mm-hmm. mais innovation mooy nga mën a defar téléphone innovation mooy nga mën defar oto innovation mooy nga mën defar ventilateur innovation mooy nga mën defar cure-dent exemple boobu ça fait trois ans maa ngi proposer nit ñi marché bi kenn jëlu ko man j'ai fait ba wane ne une petite moyenne entreprise buy defal cure-dent Sénégal mën nga am un bénéfice de trois milliards. cure-dent cure-dent parce que ah Mansour on est dix-huit million jëlal rek 10 millions d'adultes 10 millions d'adultes ku nekk chaque jour benn repas nga utiliser benn cure-dent tu as 3 par jour fois 10 millions de personnes fait 30 nga def ko ci ay sachet 100 j'ai fait le modèle économique mais cure-dent ñun Chine lañ koy jëndi wala Turquie soccu en Casamance exactement mm-hmm. donc yu mel noonu da nga war a mën a créer sa bopp loo xam ne day créer emploi créer valeur ajoutée moo tax on na beaucoup insisté sur cet aspect innovation mais innovation boobu dafay ànd ak infrastructure durable tey l'autoroute à péage ku mu sañoon nga moom ko de c'est des milliards que ça génère pour Eiffage autoroute à autoroute à bi xam nga ñaata la ci ñaata la ko Eiffage jële vingt malheureux milliards li ci des yépp gouvernement du Sénégal moo ko ci def à l'époque on aurait pu dire mais secteur privé Sénégal toog leen ci benn néeg ngeen waxtaan ngeen tontin ngeen indi 20 milliards bu ñu ko defoon tey duñ fi nekk di fay ay bor parce que Sénégal mooy moom infrastructure bi ñooy moom dividende yi te dañ ciy créer des milliers et des milliers. pourtant c'est l'appel que le président Sall a toujours lancé au secteur privé. fort doxalu ko bu ñu booloo réunir ñëw ensemble dafay consortium. Mamadou pour xuus man club des investisseurs laa nekk. <laughs> defu ko. Mhm. defu ko. y a un exemple que j'aime bien donner. fii récemment waa patronat ñoo toog ne ñoo toog def émission ne toog nañ cinq ans juróomi at Macky Sall recevoir leen le patronat sénégalais le secteur privé sénégalais qui doit être fort mmh. ceux qui doivent créer des emplois ouais. pourtant Macky Sall moo jël suñu avion def ci kérosène dem ba Paris pour présider les journées économiques du MEDES mmh. MEDEF France c'est-à-dire ouais. le français ñu invité ko mu jël suñu avion dem fa ne leen yéen le patronat français yéen le secteur privé français da ngeen xarañ da ngeen xarañ tellement que man lu may liggéey sama réew sax dinaa leen woo jox leen. jël Alstom. jël Alstom ñëw jox ko train express régional muy de gâchis xaalis bu dul yàqu bu kenn xamul. kenn neewul train bi baaxul on l'a jamais mais lu war a jar nga jënd ko dix baaxul. Mm-hmm. ci sa askan. boo demee nga bàyyil ñu fi ay bor. loolu nag quatrième pilier Diomaye président daf ci taxaw. Mhm. non seulement dangay def innovation technologie ñun war nañ am tey ay silikon Valley. Mhm. mën nga am diggu fuuta nga créer fa institut boo xam ne xale yi objectif yi mooy dans trois ans nañ mën defar téléphone. nga dem feneen nga ne dans cinq ans war nañ mën defar oto. Ah, ay drone yëpp ak feneen ak ay mais tout. parce que léegi gis nga gap bi amoon avant par exemple ñu ne euh, France day am télé cinq ans après Sénégal wala France day am oto dix ans après Sénégal am oto. mais gap technologique bi melatul noonu et là où aussi il y de la diaspora mm-hmm. dans tous les domaines de la vie économique et sociale y compris dans le domaine technologique sénégalais de la diaspora ñu ngi ci fépp man je discute avec des gens dans le domaine de l'intelligence artificielle quelqu'un comme Mandiaye Diallo bu nekk France maa ngi koy saluer d'ailleurs au passage mais c'est des gens tu leur donnes des projets sur l'intelligence artificielle ñu defal la Sénégal loo xam ne amagu fi mm-hmm. mais ñun on tend toujours à recopier et c'est pourquoi le programme Diomaye Président insiste sur l'innovation les sciences la technologie et les infrastructures durables. le dernier point le dernier point le dernier point waaw benn rek moo benn rek moo benn benn rek moo des c'est la question de la sécurité et du rayonnement international du Sénégal mhm. sécurité extérieure parce qu'on est entouré ah, par le de feu mhm. donc gars yi bu ñuy wax naan non ñi xamuñu ay xale lañ amuñu expérience kan moo fi amul expérience ba xam ne ñun on subit une menace kan moo amul expérience ba xam ne dañu war a renforcer leurs forces de défense et de sécurité pour que le Sénégal puisse être havre de paix mm-hmm. ñu ciy wax ci sécurité extérieure di ko wax ci sécurité intérieure mais dans tous les domaines mooy la diplomatie économique la diplomatie des contrats pétroliers et gaziers et dans tous les autres domaines le tourisme aussi et le sport avec la création de ay lycées sportifs mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci programme bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen l'artisanat donc tout ça boo ko boolee la réforme des institutions euh, le patriotisme économique économique mooy endogénéité euh, le capital humain euh, l'innovation technologique ak la sécurité mooy jël nga Sénégal nga def ko ay nar nar yooyu da ngay xool les meilleurs sénégalais fu ñu nekk dans le dans le monde nga jox leen ko. Mhm. loolu moo lay permettre au bout d'un seul mandat le Sénégal commencer à être un pays émergent mais là on vient de faire douze ans tey comme par hasard ah tey la rapport bi génnee. Mhm. tey la rapport bi génne ñu ne ñu wuret cent soixante neuvième sur cent quatre vingt treize maanaam ca ndaare ndaare ndaare lañ ne <laughs> kenn nag neewul defuñu dara mais li tax lu bëri lu ñu def mënul sotti mooy dañu jël étranger bi am complexam am teg ko ci kaw sénégalais te ñun nag génération d'idées mhm. au niveau de la coalition Diomaye amuñu benn complexe bu ñu nekkoon tey président dañuy ñëw ñu déroulé bu ah, Sénégal docteur on s'est un